le client n'est pas demandeur d'une protection de ses données personnelles par l'État du Sénégal dans le cadre d'une politique pénale à géométrie euh, variable moom li nga xam euh, les avocats d'Ousmane Sonko parce que xam neen tey taxawaay procureur mooy protéger ay données Ousmane Sonko que ni waruñu ko publier si li espace public bi moom ki les avocats d'Ousmane Sonko ñoom nee Ousmane Sonko nee na soxlawul li nga xam nekk que di euh, procureur pour protéger les données personnelles le pôle d'avocat euh, Ousmane Sonko euh, ñi ngi constater en effet que le procureur de la République s'est illustré par son indifférence lorsque les données personnelles du même Ousmane Sonko les photos et vidéos de son enlèvement les images de ses effets personnels avaient été largement publiées par Anita TV euh, pourquoi donc procureur daldi nopi par rapport ak ak moo ko jàppee fana xam ni itam mooy zaanu Koungheul ay image am ay vidéo am ay matériel lépp ñu daal di koy jël publier ko si benn site bu daal tudd Anita TV le pôle d'avocat d'Ousmane Sonko ñom nee lan mo tax li nga xamné que moo le procureur tijji won ci benn enquête jappé ni tam pôle d'avocat yi ba tey mu daal japp ni ñom ñi ngi daal di déchiré euh, par rapport ak ouverture bi nga xam tam euh, procureur bu ko daal di defa ni mu daal kay annoncer ce 26 octobre 2023 jàppe ni itam l'administration refusé et continue de refuser d'exécuter une décision de justice ñom itam ñi ngi fatali que ni euh, euh wax di nak wax di moy administration mu exécuter cette décision de justice non à la euh, diversion diapne de len leen li nga xamné que modi dévier de l'essentiel faté l'exécution de la décision de la justice fa nga xam ne itam que euh, Ziguinchor obligeant euh, DGE signé tout ki n'a xam que modi di Thierno Thiendella Fall fal daal jox li nga xamné que modi fichi à Ousmane Sonko. Le collectif demande plutôt à l'État de tirer les conséquences de la situation sanitaire extrêmement grave et préoccupante de M. Ousmane Sonko. Euh, mu nek lo xamni itam amna solo bu baax baax baax baax avocat Ousmane Sonko yi ñom nenen neen wara wax jëmono ji moy état bu Sénégal gaaw gaaw réagir par rapport ak son état de santé bi nga xamni itam doy wax loolu ba daal ci yegg parce que suñuy euh certes c'est important peut-être pour ñu daal xol li nga xamne que modi trajectoire trajectoire li nga xamne que modi document bi fan nak fan la daal di aw ak kan mo si daal di impliqué wu mais li ci ëpp solo moy ñu daal di war a xam exactement Ousmane Sonko lan mo xata daal di daal et que état du Sénégal daal ci jël ay responsabilités allant dans ce sens. Le collectif de défense rappelle à l'État son obligation de protéger la vie et la santé des personnes privées de liberté et en particulier de M. Ousmane Sonko, dont la situation sanitaire se dégrade de jour en jour, euh, ce qui est connu des autorités exécutives et judiciaires. Nous avons Ousmane nous Fateli, du Sénégal pour protéger euh, waaye tam ak bu euh, Ousmane Sonko euh, jëmale si édition yi nga xamni tam itam koy daal di yëkki jógee si ak wal ki yanal les avocats d'Ousmane Sonko donc li ñu bëgg li nga xamné que modi cette décision de la justice premièrement soit appliquée bi nga tam mo la moo la jógee euh diwaanug si Zigan Ziguinchor par le juge Sabassi Faye waaye tam ni si pour Ousmane Sonko daal di jotaat di nga xam que modi liberté am sib tënk loolu leen di war a mën communiqué bi nga xam ne na avocat yi ñu di japp ni le procureur Instagram, c'est resté indifférent euh, par rapport à la publication des images, des vidéos, des armes et l'ordinateur d'Ousmane Sonko par le site Anita TV. Alors, le pourquoi tu es venu protéger Donc, nous ne comprendre en fait. Qui est Anita mm. Quand moi Anita hmm. Man fallu pour te dire en toute sincérité, tout, quand j'entends le nom de Anita, j'ai tellement mal au fait. Hmm. Parce que je, je suis moment souvent ça suis non hmm. et que tolloon nañu ci période où xam effectivement. Hmm. des informations confidentielles wala des euh, bagages de Ousmane Sonko ont été étalés sur la toile publique et que ñan ñoo relayé c'est Anita TV jamono jooju noonu ñi ngi doon wax exactement ñii ñan lañu kii moom mooy kan. lan motax peut-être amul ay charges yo xamné dalna dal ci kawam je pense que tey jii réponse bi am nañ ko donc au moment où tey dit les avocats de Ousmane Sonko des ay Il est bien vrai que peut-être processus bi jaarul à la normale mais ce qui importe c'est moy lan état ou santé Ousmane Sonko motax tax gis nga pour te dire euh, euh, le certificat là man avant ñu yegg ci plateau bi si ko lire parce que je ko lire parce que j'ai pas envie xam exactement ce que nekk ci biir certificat médical bi wallahi azim avant may may je fii man si la koy gis. Hmm. Mole lay wan ça doit être un secret Légui nak xam nga lan moy mbir bi fu mu jugeeg fi la wara jaar jugewul fofu du loolu mom moy problème bi hmm. motax sank manela ne li nek ci bir le contenu c'est ce qui importe et ben mbir amna na hmm. Ousmane est un homme d'honneur hmm. Ousmane Sonko c'est un homme d'honneur biñ ko waxee bàyyil grève de la faim bi dafa am ben processus bo xam mom lañu la ñu entamé kan moko wax arrêtal c'est le khalife mom moo yëkëti ay tandarma jox ko pour pavillon spécial qui euh, certificat bi Ousmane s'il n'a pas un état d'esprit très fort déstabiliser parce que personne qui délire euh, hmm. tu n'es pas en état normal hmm, hmm léegi ces informations là ñuy est-ce que c'est fiable. Hmm. est-ce que ce sont des informations qui sont ne. parce que le tax j'ai l'habitude de te le dire que. Hmm. yaakaar naa a nañ jamono aussi Ousmane il doit s'acquérir hmm. de son état de santé. parce que nit boo xam ne da nga grève de la faim mu indil la ay jafe-jafe ñu la pavillon spécial jamono jooj noonu ñu ngi wax que en état d'urgence tu es dans le coma nga jóge si, duggaat si grève de la faim mais tu peux avoir des séquelles et que une personne qui est dans le coma j'appelle, ne que da ngay am li des séquelles moo niti nit yi du di Ousmane doit retrouver la plénitude de ses facultés physiques pour être en pleine forme de ses facultés matales mm, mm. Fallu yow mi soo xëyee jour l'éco suñ la né taxawal ci plateau bi ñi lay sétane dinañ xam que kii kat il n'est mm. pas en pleine forme parce que bala ngay mën xalat bala ngay mën def sa bala ngay wax il faut que dara nek ci sa donc au moment où je te parle aussi peut-être que nag que Ousmane est un homme d'honneur parce que peut-être amn'a ay mbir yo xamné déclenché fan lañ toll mm. et que li leer ba leer moy jamono biñ kay grève de la faim mm. c'était pour un but précis mm est-ce qu'il n'y avait pas des négociations hmm. am na ñoo xam dañ lay wax waaw parce que waxtaan amon na mo waral mu dakal li nga xamné ne moy euh, grève bi hmm. légui sang ma la doon wax né que Ousmane tey ji xamné né que yoon jox hmm. parce que amna ben décision bo xamné justice rendre nako et appliquer wuñ ko légui nak le président de la République son excellence euh, monsieur Macky Sall bi muy euh, renoncer à son troisième mandat dafa yëkëti ay cadeau né je vais veiller à ce que toutes les décisions de justice soient exécutées. Hmm. Il y a une décision de justice pour ramener juge bi ñu mais allant beaucoup plus profond Mamour nous gis que les avocats d'Ousmane Sonko s'agrippent carrément sur la décision de la justice parce qu'à un moment donné nous nous koy commencé à d'une dévier à autre chose exactement Nous avons nous rappelé waat peut-être pour ñu nous di décision de justice bi nga amenée. Thierno Thiam yàlla Fall bañ ko daal di appliqué. xam nga xam nga lan neex ci euh, contexte bi. Hmm. ça nous permet aussi nous en tant que journalistes aussi d'aller vers la recherche et xamaat tu war tuuti euh, droit bi tay jii sénégalais ñom xam nañu sax fan la droit bi fété wé yag may wax sank euh, un juriste ma joxat la xolal maître Doudou Ndoye quand tu l'entends parler limuy wax day am fluidité quand tu l'entends parler da ngay xam ne que ki droit mom moko ko parce que c'est limpide clair et précis dara mënu ko dindi Motax tax il est très difficile ngay waxtaan wala ngay débattre sur des choses qui ne ce n'est pas exact wala des choses yo ne c'est pas avéré tey sénégalais ñom sont ñoo ñu tout sur l'actualité Lolu xam nga ci dara donc yaakaar naa ne que jamono ji ñu toll waru ñu jël des textes jël li nga ne des paroles modifier ko pour atteindre à un objectif politique parce que la politique doit avoir des limites et que tey jii ñun lan moo ñu indil problème yi yëpp parce que dañu jéggi li nga xam ne moom mooy lan le contexte politique maanaam on a franchi li nga xam ne moom mooy les limites moo waral tey jii on est pas dans le champ humanitaire yaa ngi ma ko doon wax avant-hier mm. ne jamono ji dañu war a nekk sur un contexte de l'humanisme mm. parce que lan santé moom moo ëpp doole lépp sëñ Fallou léegi mu amaat beneen mbir concernant le euh, maître Doudou Ndoye bi ma ko dégluwee regarde ce qu'il a dit sur euh, la décision bi nga xam ne juge bi joxe na ko juge bi statué wul sur une procédure pénale faut statuer sur une procédure civile parce que c'est un juge civil Il faut faire la différenciation entre un juge civil un juge pénal ce n'est pas la même chose maintenant faut statuer si li nga la radiation mais statuer sur le contumace léegi pour finir en conclusion Maître Doudou Ndoye nee na contumace bi exister tout exister parce que Ousmane xam fait fan la nekk mm. et y a eu peut-être une arrestation mm. Ce def Ousmane c'est une arrestation Nous avons vol de téléphone portable informer euh, euh, euh, les supérieurs Nous avons envoyé une équipe. Nous avons dit jël hmm. c'est pas Ousmane qui s'est rendu tout seul au tribunal hmm. et que droit bi dafa am moment on différencie pas et au moment où nga def li nga xam mom moy le partage d'une personne fofu ya ngi différencier. Hmm. Euh, du kii nga xam ne que moo di euh, maître Bamba Cissé mu japp ni est-ce que Sonko nekul euh, une personne divisible le moment ko peut-être kiñ ñu ak vol de téléphone bi ak kiñ japp ak kiñ ñu condamné par contumace bokul donc mu nek lu am solo. ya xam ne itam souligné exactement beneen aussi. Hmm, hmm. la DGE ñom dañu écroulé wu. à ce niveau là. parce que li ñu nekk di doxalee nii. du sen prérogative. ak sen attribut légui nak ñu ne le pôle d' dañu dem interpeller lan la wax Sénat. Hmm, Sénat. Sénat est une euh, commission autonome. Hmm. jarul won sax avocat ñuy dem di len saisir ñom dañu waron auto saisir. auto saisir. li la wax kay du dañ ñu jall ci leneen. alors euh, mom Sénat sax justement dafa dafa dafa dal togué de manière équidistante entre li nga xam nekk moo les électeurs.

n'a pas à feuilleter un peu partout euh, sur la personne euh, euh, qui s'est qui s'est présentée face à lui entre autres entre autres de que ni que modi fichier exactement de plus en plus on assiste mais d'autres pas ses prérogatives ses compétences le mot que peut-être conseil constitutionnel ko et que tout cela s'il n'a pas que modi qui silence qui nga xam que modi Sénat sax avocat Ousmane Sonko doon saisir li nga xam nekk moo euh, Ziguinchor Sénat peut-être la addu daal di siffler li nga xam nekk la fin de la euh, de la récréation. xam nga lan la droit bi wax. Hmm. toute décision de justice doit être motivée. Hmm. droit bi bépp bata boo bo xamné génne nga ko c'est-à-dire décision hmm. bi nga xamné ne génn na yow tay ji da ko qu'est-ce qui s'est passé avec euh, le juge de Ziguinchor bi mu fait verdict après dañu gis 24 heures après des euh, éléments justificatifs mm. parce que droit mm. et que il faut faire la différenciation DGE n'est pas une institution judiciaire DGE institution bo c'est administratif mm. et quand on parle d'administration là c'est les écrits donc su jëlee peut-être li nga et prérogative ak attribut bëgg ko outrepasser ses compétences. Hmm. maanaam DGE problème yëpp yi nga ne am causé wax que une décision de justice doit être motivée Sénat jarul ñu saisir parce que c'est une commission autonome ba autonomie même élection yi nga une neutralité il faut de, il faut de la neutralité hmm. sur ces élections hmm. du point de vue organique hmm. donc il y a c'est des choses qui ne nga suñ en conclusion tu diras seulement que l'affaire Ousmane Sonko n'est pas une affaire juridique c'est une affaire politique et au, moment où on parle d'affaires politiques problème politique la solution doit être une solution politique nagn ko bàyyi ko mu mu acquérir de son état de santé après nak lool neuf nëb su jallé on parle là de la politique hmm. dund doomu adama ken duko ko hmm. je mosoon la fi jox le cas de Bobby Sands hmm. bi nga xamné dafa defoon grève de la faim ba ñak bakkenam Bobby Sands a perdu sa vie dans les